nee na nag bi nga ko delloo nag ay waajuram soxna Amina mi nga xam ne mooy mooy mooy mooy waajuram bu jigéen moom moo ko daal di yor di ko yar fekk moom mi ngi toll ci ñeenti at jëm juróom bañ tollee bañ duggee juróom juróom juróom juróom benneelu at ma rek mooy ci déwén sa daanaka ci la soxna Aminatu mi waajuram bu jigéen ne daa bëgg a seeti siyaare ji barabu so si Abdullah mi nga xam ne mooy bàyyi yonente bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abdullahi fekk Seydina Abdullah xam nga ne moom de ci commerce la doon dem Saam wàcc Madina far yàlla moom ko foofu Madina wetu Madina foofu lañ ko foofu lañ ko denc soxna Amina mi nag ne day siyaare ji da koy siyaare day dem Madina siyaare ji waale bërëb boobee bërëbu bàyyam moom Seydina Muhammad yóbbaale ko itam nga xam ne moom moom a ànd ak benn jigéen yoo xam ne da ko yoroon moom soxna Amina ku ñu wax ummu ayman lañ ko wax mooy barakatu moom la aw turam waaye ummu ayman lañ koy dàkkantale ak Abdul Muttalib mi nga xam ne mooy maam yonente bi ñoom ñoo àndoon ci yoon woowa ba ñuy dem nag fekk xam ngeen ne ma Makka nga dina xam ngeen sore na mat na juróomi téeméeri kilomètre maanaam weer lañ ko dox bañ demee maanaam weer weer weer la la la tukki ba maanaam diire laa bëgg a wax maanaam weer weer weer la la lépp diire diggante dem ngaa dikk ba waaye nag yàlla dogal bi nga xamee ne dem nañ ba ba ba siyaare ji barabu abdullah moom nga xam ne mooy wajur yonent bi alayhi salaam sayyiduna abdullah bi ñuy del si nag ci yoon wi la soxna amina yëpp ak wéradi ci yaramam daa di biñ ñëwee ba àgg ci fi ñuy wax al abwa diggante Makka ak Madina foofee la nelawee moom soxna Amina fekk boobu Seydina Muhammad mi ngi am juróom-benni at rek yàlla dogal si Abdu Seydina Abdul Muttalib ni ma ko waxee mi ngi woon ci yoon wi moom moo daal di jël lépp yonente bi tàmbali ko yar ndax deseetut bàyyi xam nga bàyyi waajuram bu góor bi nga xamee ne soxna si mi ngi ànd ak moom maanaam booba gënee gudd àdduna moom Seydina Muhammad ba mu tollee ñaari weeram rek ci la waajuram bu góor nelaw nelaw ci wax ji gën a wér si yaa yaayam itam muy soxna Amina gis nga du amee juróom benni at ci la nelaw si Abdul Mutalib daal di koy jël Abdul Mutalib nag moo nekkoon borom dëkk ba waxoon naa ko démb jiite woon Màkka gépp bi mu ko yoree itam moom Abdul Mutalib daa daal di yëg ci moom yërmaande ju kawe ndax yërëm na ko ndax lim ñàkk teel a ñàkk ay waajuram ak it lim gis ci moom mu nekk xale boo xam ne bu yaru la bu bu boo xam ne moom Abdul Mutalib ci moom danaa wax ni kii de dana am dana am mbir mu ma feeñ ci moom wax na ni Abdul Mutalib xam nga moo doon borom dëkkoo ci ci kaaba gi dañ ko daa lalal genn jàngonaay boo xam ne moom rek moo ci toog kenn du koo bokk ak moom ay doomam ma doon nañ fukk ak nangam ñooy toog ci suuf ci wetam Seydina Muhammad ma sax ñëw na day toog ak moom ca kaw ba muy xale waaye bu dañ koy bëgg a dàq mag ñi dañ koy bëgg a dàq wax ko ne ko nga wàcc waaye moom da leen di wax ni bàyyi leen ko bàyyi leen ko kii sama sëta sama dooma te mbir dana ma sa feeñ ci moom xam naa ne ndax ni ma gisee mbiram du nitu kese moom it mu yor ko ba bi nga xamee ne dem na ba am juróom-ñetti at moom Seydina Muhammad yu teg ñaari weer ak fukki fan ci la Seydina Abdul Mutalib moomu faatu Abdul Mutalib bi yonte bi am juróom-ñetti at rek yu teg ñaari weer fukki fan ci la faatu waaye bi mu ci daat bi mu daataa faatu daa dénk doomam ji ñoo Abu Talib nga xam ne moo gënoon a mag ci ay ay doomam ne ko na nga ko toppatoo moom xale bi yàlla dogal ci gàttal rek ndax lu ci bari xëy na daaw waxoon nañ ko kon Abu Talib mii bàyyam bu ndaw bokk ak bàyyi ndey ak bàyyi ndax moog bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi Abu Talib Seydina Abdullah ak Abdullah ak ak Abu Talib ñu bokk ndey ak bàyyi moo tax Abu Talib moo ko daal di jor di ko di ko yar boobu yonent mi nga am juróom ñetti at ñu teg ñaari weer fukki fan Abu Talib nag xam ngeen ni moom ak njabootam daa bari woon te ab liggéeyam demut noonu ndax doon mag xéewalam taxul mu demee noonu moo tax yonent ba mu fa nekkee diir boobee tumuranke bu mett dal na leen ndax Abu Talib boobu yorub dum dundale njaboot gépp ndax bari guñ bari te maanaam moom mooy doon moo doon kilifa gi yu bare bari war ko li mu waroon a liggéey kàttan na muy ko ko waaye teewul nag yonente bi ci boom dinaa ci ñëwaat léegi daa ko jàppale ci liggéey bi yonente bi danaa lijjanti dem di liggéey di lijjanti di di sàmm lu mu ko ca fay mu indil Abu Talib ngir mu yore ko njaboot bi yàlla dogal it ñu seetlu ci yonente bi booba maanaam barke bi nekk ci moom ñu teel ko seetlu Abu Talib wax nañ ne benn bis ni ko Ibnu Asakir nettale ci téeram bi mu def taarix Dimask wax ne benn bis ku ñu wax jën xama ibnu arfata dafa wax ne damaa mës a dikk mag fekk boobu bekkoor dafa am nee na xureys gépp jaaxle am ñenn ci waa xureys ne Abu Talib mbir mi loo ci xam fekk Abu Talib xam nga ginnaaw ba moom dëkk ba ginnaaw ba fa Abdul Mutalib jógee mooy kilifa dëkk ba ñu ne ko mbir mi loo ci loo ci xam fi ne dara amatul te xam nga bul fa bul fàtte ne waa Makka ci sàmm la ñu dund ñoom ay gàtt la ñu yor di ko sàmm duñ daanaka mbay duñ ko def duñ bay daanaka sàmm rek ci la ñu dund moo tax bu bekkoon amee dañuy daal di gaaw a jaaxle nee na bi loolu amee Abu Talib xool xool amul pexe mu daal di dem jiital yonente bi te ko xale bu ndaw la ne mu jiital ko indi ko ba ci kanamu kaaba gi mu taxawal ko daal di daal di joxañ kanam gi nee na bi mu ko taxawalee ñëpp jàkkaarloog waa dëkk yëpp taxaw di ko seetaan kanamu yonte bi nee na ni mu leere woon xam ngeen yonte bi kanamam moom ñi ko nettali ñëpp dañuy wax ne dafa leer ba dañu yàgg sax ci wax ne léeg-léeg guddi dinaa leeral bërëb yi nekkal nga xam ne da nga ciy gis soxna Ayisa wax nañ ne nas na puso ci leeru kanamu yonte bi alayhi salaatu wa salaam moo tax nag nee na Abu Talib bi mu ko indee ba ci kanamu kaaba gi mu daal di ko ci mu mu mu maanaam yonte bi wéeru ci kaaba gi nii mu daal di yëkkati loxo yonte bi mel na luy ñaan ne nes tuut asamaan si rek boobu benn xiir ne ko nes tuut ñu gis asamaan si tàmbali di def ay niir di dajaloo mu mel ne luy xiin ba mujj nee mu daal di sotti ndox moo xam ni kenn mës sa gis ndox mu bare noonu xéewal daal di am mbir mi tàmbali napp maanaam fan yi mu nga tàmbali taw loolu moo tax Abu Talib Abu Talib bayit yi mu def ci yonte bi te def na ci bayit yu bëri bëri bokk na ci dañu ci wax mooy wa abyadu yustasqa alxamaamu bi wajhihi himalul yataama ismatun lil aramili maanaam wane ne kanamu yonente bi alayhi salaam dees na ci baaw naan ci xar kanamam bu sell boobee loolu kon day wane ne kon ñoom kenn la ñoo xam barke bi nekk ci moom kenn lañ koy satli itam bokk na ci li ñuy nettali lu bare bari te téere siire yi di ko nettali mooy wax nañ ne bu masaa am xéewal gu ñuy xéewloo ci kër gi Abu Talib seetlu na ne bu bu Seydina Muhammad sukkee ci ndab li ñëpp dañuy lekk lekk lekk ba mu des bu sukkut nag mbir mi day gaaw a jeex nga xam ne bu ku ci am ñaar ci ñett mbir ma jeex ñuy def nag bara ñoo xéewlu rek lijjanti moom ba mu ba mu ñëw bokk na ci dem ne bu ñu daa seetali dara day day maanaam bu njëkkee naan ñëpp fay naan ba ba ba mbir mi def su fekkee keneen jiitu na ko bala mu àgg si moom mën naa jax ñu ne buñ bu ñu amee xewal am ak soow wala daal dañuy naan dañuy lijjanti ba mu ba mu ñëw rek mu njëkk naan ci loolu la Seydina Muhammad nekk ba ni mu amee fukki at ak ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ni wax nañ ne ñenn ñi dañuy wax ne teg na ñaari ñaari weer ak fukki fan waaye surul foofu mais fukki at ak ñaar rek. ci la ànd ak bàyyam bu ndaw bu Abu Talib ci dem Saam ngir wuti marchandise xam ngeen ne waa Makka liñ daa def mooy ñaa at mi ñaari tukki lañ ci dugg dañuy dem Yaman mooy rexlata sitaai wa sayf dañuy demoon Yaman wuti for marchandise aji di dem Saam di fa wut marchandise ñaari tukki yooyu lañ daa tukki buñ demee Saam wuti fa marchandise ñëw jaay ko bu jeexee ñu dajalewaat seeni alal jox ko mbooloo ñu wut ñu leen di garde ndax boobu yoon yu amut sécurité ñu ànd dem wuti marchandise bu ñëwee kenn ku ne li nga ci amoon ñu joxaat la bu nga jaay noonu lañ daa commerce mooy ñaari rex la ñaari yoon yooyu ñu la def mooy yoon yu jëm yi ñu dem saam ak yi ñu dem yaman mooy rex la te sita yi wax sayf bi ci jamonoy jamonoy coor lañ koy def bii jamonoy jamonoy lolli wala booy jamonoy sedd am ci yoon woo xam nag bi may fukkaat ak ñaari dafa ànd ak sayidna Abu Talib moom si moom sayidna Muhammad maanaam Abu Talib wax nañ ne maa ngi jégul baax sayidna gi bu seet mu wax ko rek waaye ñooñ it li ma waxoon dim mooy ñoom seen ngëm mu maanaam ba léegi xilaaf la ci borom xam-xam yi ñi ànd nañ ci ne Abdul Muttalib amul sikk ne ku gëmoon yàlla la ndax la mu waxoon Abraha mooy mooy mooy lil bayti rabbun yaxmihi Abu Talib it damaa teewul waaye waaye waaye yi mu wax ci yonente bi wax ko ne wax ko ne ko yow sa diine ji amul sikk sàkk mooy diine ji dëgg te it moo féete kaw diine yëpp ay wax yu bari bari moo tax loolu xilaaf la ba léegi ci ci borom xam-xam yi waaye mel na ñu bari ci ahlu ahlu maanaam ahlu sunna li ñu wéral mooy Abu Talib jot a gëm moom xam na ne diine jee dëgg nangu na itam ne yàlla wér na nangu na li yonte bi wax lépp wér na waaye dafa rusoon a nekk di dugg ci lislaam ngir ay maamam lañ nekkoon mu bàyyi ko fa loolu ñu ko di sikk loolu ci bañam léegi kon bi ñu àndee ci yoon woowu rek ci gàttal bi ñëwee ba àgg fi ñuy wax Basra Bas Basra Busra lañ ko wax ne rek ci saam la bokk mooy ci Syrie fi mu ne nii Syrie réew mi ñuy wax Syrie bi nga xamee ne ñëw nañ foofu ci la ci lañ taseeg labbe bi ñuy wax Buhayra Buhayra ab labbe la woon boo xam ni dafa amoon xam-xam ndax dafa yàgg gëstu ci diiney nasaraan ak diiney diiney diiney diiney yahud yàlla dogal nag xam ngeen ne suñu borom tabaraka wa taala ci boppam wax na ni nasaraan yi ñoom xam nañ bu wér yonante bi ndax dañ leen ko misaal ci téere yi jiitu woon misaal boo xam ni amatuñ ci sikk sàkk waaw suñu borom da wax ne alladina aataynahumul kitaaba yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum waaye niñ xamee seeni doom ne kii sa doom la noonu lañ xamee yonente bi na muy mel ak léppam lañ lañ xam moo tax mosuñu ko sikki sàkk wa inna fariqan minhum la yaktumuuna alxaqa wa hum yaalamuuna maanaam dañuy nëbb dëgg googu nag rawatina bi yonente bi feeñoo dañoo daal di soppi téere yi xam ngeen ne maanaam téere injil li ñoo li ñoo évangile fi ne nii ñeenti xaaj la yu bokkut boo xam ne benn bokkut ak sa morom boo xam ni kenn ko ne ka ko bind bokkut ak morom ja te ka ko bind it ka ci gën a mag ci ñeent ñeent ñëw ka ci gën a mag ginnaaw Isa Seydina Isa téeméeri at la ñëw lakk ba mu wàccoon amatul téere boobu te dañ ci jaxase waxi yàlla jeeg waxi gaa ñu baax ña ñëpp ñu jaxase ci ci benn téere maanaam du téere boo xam ne ñoom suñu bopp nangu nañ ne soppi nañ ci dugal ci génn ci loolu nag moo tax léegi fii ne nii mu ne sutee gisati maanaam turu yonte ba ak nañ ko ne waaye ña jiitu woon moom ci nasaraan yu njëkkee ñoom xàmmee woon nañ yonente bi xam ko ba buñ ko gisee xam ne kii yoon mooy yonente bi ndax lépp léppam dañ ko misaal ci téere yooyu moo tax bu xayraam yi nag bi nga xamee ne loolu sax mën naa ci nat nat loo Seydina Aliyu Seydina Omar wax nañ ne mas naa wax kenn ci tur wi lay lay lay fàtte kenn ci abdullah ibnu salaam nga xam ne moom ab ci ahlu kitaab yi da bokkoon ab ab ab yahood la yaakaar naa seydna omar da ko laaj ne ko waaw ndax li alxuraan wax ne yéen da ngeen di xam da ngeen a xam yonente bi ni ngeen xamee seeni doom ndax loolu nu mu demee mu ne ko ni mu ko waxee de noonu la demee wala lu ko raw sax ndax man ni ma xamee ni ma xamee woon yonente bi xawma koon sax xamee doom ndax xamee doom xawma seeni wayjur rek la ci aju ko te yonente bi xamoon naa ay wayjuram ak la muy mel ak fa muy juddoog moom ci boppam ay meloom ak ñoom ñu àndal ak lépp xamoon na moo tax bu xëyraa moom bi mu gisee yonente bi rek mu daal di xam ni kii mooy yonente bi mu daal di wax Abu Talib ne ko fekk bu xëyraa Abu Talib neen daanañ fa jaar te du génn bis boobu nag ba ba mu gisee rek daa génn ñëw bi mu ñëwee dafa wax Abu Talib ne ko kii ana baayam mu ne ko kii sama doomam mu ne ko kii doo baayam baayam faatu na bu yàgg mu ne ko noo ko xame ndax xam nga Abu Talib sama doom rek la ko daa wax ngir yërmaane ji moom ci moom ak jàpp bi mu ko jàpp doomam mu ne ko nag li ma ko xam mooy mooy bi ma ko séen rek laa xam ne kii mooy yonente bi mooy yonente jamono ji daal di koy wax ay ay firnde mooy seetlu na bi bi nga xamee ne toog nañ moom ma nga ca fam fam nekkoon bi mu séen na leen bi ñu toogee ñoom ñoom ñu jógee waa ñoom ñu jógee Makka bi ñu toogee ci garab gi daa seetlu keroog garab gi ci moom wëlbatiku ba tolloog fi yonente bi maanaam gaa ñëwee ñëw jiitu ko ci garab ndax ñëpp ay magam lañ maanaam boobu moom xale la woon ci ci yoon woowu moo daa nekk moo daa mujj ñëw itam wax ne moom mu ngi bu ñu ñëw ci jataay bi ci garab gi tam mag ñee fi ñëw toog ci ker gi waaye bi yonte bi ñëwee fa mu toog xaw a féete naaj yi ker gi ci boobu moo wëlbatiku ba gën a ba féeteeg moom loolu bokk na ci li li Buxayra gis Buxayra itam daal di wax yonte daal di wax Seydina daal di wax Abu Talib ne ko gaawal nga delloo ko ci dëkk ba ndax yaa ngi dem saam te saam ay yëxoo nga te buñ ko gisee dañ ko faat ndax yëxoo di ñoom bëgguñu yonente bi génn leen bu leen fàtt ni maanaam loolu sax buñ ko tabbee day gudd waaye yonente yi li ci ëpp ci yëxoo di la bokk lañ bokk ndax Seydina Isxaaqa mii doomu Seydina Ibrahima bokk ak Seydina Ismaila Isxaaqa moo jur moo jur Yuusufa yuusufa ci moom la mboolem ba maanaam yonent yi nga xam yëpp càllaloo maanaam ci isxaq moom lañ càllaloo maanaam ñëpp mooy yonente yahudi la ba ci sayidna alu imrana muy waa kër sayidna isa ñoom ak zakariya ak yaxya ñoom ñëpp ci ñoom lañ càllaloo nga ne ñoom ci ñoom la yonente yi daa wàcc léegi nag yonente yi nag génn leen dem ci weneen xeet loolu moo leen naqari ñoom ñoom yahudi moo tax seen yitte moo doon bala ma màgg rek ñu gaaw fàtt yàlla dogal nag Buxayra teel a wax Buxayra moom chrétien la woon moom nasaraan la woon du woon yahud daal di wax Seydina daal di wax Abu Talib ne ko daawal daawal jàlloo ko mu daal di gaaw moom Abu Talib boole ko xale yi mu ànd la ne ngeen dem ñibbi